indi addiyaam ñu defal ko ko ci waaye loolu mu def lépp nag moom soxna Fat Diané ministre de la femme mi ngi ko defal président sakkul ko ñaan kokki dëkkub ñaan la te lii war na ci ñëpp bàyyi xel alxuraan rek mooy dëgg ku xool alxuraan ak ñu baax ñu jógee kokki ma jàkkaarloo ak sama sëriñ bii sëriñ Basiru moom sëñ Xaadim Awa Ba nga xam ni ne léppam kokki la jàkkaarloog sëriñ bu mii nga xam ni kokki la génne ak ñu bari bu ma ko dee lim danaa fi fanaan kokki moo ma ta def kokki moo ma xool gars yi nañu bàyyi xel alxuraan ji te dundal alxuraan te def ci alxuraan moo tax madame la ministre ànd ak bu rëy boobu dana ñëw indil leen kaddu président de la république ak yéenim ci kokki sàkku ñaan ci sëriñ bi lépp lu président yéeni ci kokki ñu ñaanal ko ba mën ko defal boppam ma di leen sargal nag seex seex Diop seex man damay géwlub sëriñ Touba fee ca peex maa nga ak daaray alxuraan ak arab maay fay oustaz ko am sa doom indi kenn du fay man maa def téeméeri junni ci daare kokki ji man géwélu sëriñ Touba man joxe naa téeméeri junni loolu mooy kàddu ministre bi bu yegsee dana leen ko leeral waaye jëfam nag ci diine di leen xamal ni fii mooy kokki taali jàngu yi takk ci réew mi yëpp di taali lislaam kokki dina moo la kokki la takke tey sunu xalifa bu baax bi di cheikh Mouhamadul Muntaxa ak sëriñ Babacar Si Mansour ak seeni bokk ku ci nekk sa naam kokki la def loolu nag mooy li leen bëggoon a ubbil sëriñ bi dina la sa doom jii ñëw di ministre Fat Diané mi ngi sàkku ñaan nga ñaanal président de la ñaanal ko ba seen yére ci kokki ñu man koo def nañu ko bëggee nga bisimilah nga yegale délégation bi si des. salaamaaleykum wa ñu fas yéene le présenté délégation officielle bi nga xam ne moom moo ànd léegi bi may lim ñi fi jànge it as ndaw nukkumaan moom itam dafay kenn ci man di kenn ci diine jéeg lislaam bi moom itam fi la jàngee. jërëjëf euh, Ablaye Mbaye Pekh euh, ñu fas yéene leen présenter délégation officielle bi nga xam ne moom moom la moo fi teewal président de la république ki ko jiite comme ni ko suñu mbokk mi baax mu waxee léegi muy Fatou Diané ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants mi ngi ànd ak madame Mbacké conseil du président chargé des daara ànd ak honorable Néné Ndiaye honorable député Fatou Sène honorable député maam Xarim Mbacké honorable député Mame Sey Mbacké soxna Asta Sidi Mbacké ak honorable Ami Tall ànd ak aussi Laxat Fall ànd ak soxna Jéggi Diop directeur de la de la protection des enfants donc loolu mooy délégation bi nga xam ne mi ngi ànd ak euh, madame le ministre. beneen délégation bi nga xam ne gouverneur moo ko jiite donc on le gouverneur de la région de Louga le préfet du département de Louga le sous-préfet de l'arrondissement de Koki. le président du conseil départemental de Louga le maire de la commune de Koki ak les autres maires de de l'arrondissement nous avons le commandant de la compagnie de gendarmerie le commandant de la euh, le commandant de la compagnie d'incendie et de sécurité sapeurs-pompiers le, le chef de brigade régionale de l'hygiène le chef de la délégation de, de la division régionale de l'hydraulique le directeur régional du développement communautaire il y a l'inspectrice d'académie le médecin chef de région, l'inspecteur régional du commissariat à la sécurité, l'inspecteur régional des eaux de forêt, le chef d'antenne régionale de, de la CEMU. donc ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak euh, délégation gouverneur léegi dañuy fas yéene dalal jox seen fàllu mu dalal euh, délégation officielle bi suñ paree ñu jox madame le ministre comme ça sëriñ bi mën koo dalal ministre waaw donc dañuy jox ma euh, madame la ministre mu jël kàddu suñ paree jox sëñ Fallou mu wax ko tontu ko si turu sëriñ bi incha allah waaw incha allah noonu la. di jël karol incha allah donc monsieur le maire vous avez la parole. mooy dalal ba noppi bu ko defee maire doog a ñëw ñu jox kàddu gi sëriñ Cheikh Diop mi yor baatul dëkk bi ci ndigalal baayam maamam Baye Xabaan Diop. su ko defee nun ñëpp ñu àndandoo diglu ko billahi min asheytaan rajim bismillahi wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñi ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp ku nekk turam ak santam di leen nuyu turu sëriñ kokki alxaaji Mouhamadou Xabaan Diop ak ki turu waa kokki yépp ñi ngi dalal sunu gan gu tedd gi di madame la ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la dalal ci dëkk bu tedd bii di kokki di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Louga di rafet lu baax a baax liggéeyam ak taxawaayam ni mu ni mu coordonné liggéey bi ak CRD bi mujj a def ci daara ji nga xam ne liggéey bi tey bu jubee lépp ci loxoom la ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu monsieur le préfet du département di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam moom it liggéey bu rafet la ci def def CDD taxaw def liggéey bu mucc ayib ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam waaye di nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Koki di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam waaye di seedeel monsieur le gouverneur ne liggéey bi nga xam ne tey jag na lépp bu melee nii sa daw loolu di monsieur le sous-préfet moo ci taxaw taxawaay bu mat sëkk tey jox cër daara ji cër bu mat sëkk ak waa dëkk bi yépp di liggéey ak ñoom liggéey bu rafet sant nañ ko gërëm nañ ko danañ la ko seedeel di nuyu l'honorable monsieur le président conseil départemental mi ngi teew moom ak délégation bi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu monsieur le maire Alaaji Sele sa Ndiaye di ko nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam moom ak délégation bi mu àndal yëpp nuyu nañ leen ziar nañ leen di nuyu kilifa diine yi fi toog yëpp kenn ku nekk turam ak santam ak chef de service yi fi toog nga xam ne lim nañ leen sànq bëgguma tuddaat ndax jataay bi dafa xaw a gàtt waaye kenn ku nekk mënoon nañ jaar si turam nuyu la ziar la chef de service yi fi nekk yëpp ku nekk nuyu nañ la ziar nañ la ak délégation bi nga xam ne moo ànd ak madame le ministre nuyu nañ ko ziar nañ ko dalal nañ leen jàmm di beral nuyoo sunu xarit sëriñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba moom ak délégation bi mu na yépp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di la dalal jàmm sëriñ bi ndax yow fii sa kër ndax daara ji lépp loo def fi nga ko defee jox nga yitte bis ba tax na biig nga ñëw fanaan si ndax yitte yoo jox bis bi moo tax nga def ko ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di beral nuyoo alhaji Serigne Mboup maire de Kaolack ku ne sëriñ Mboup ne daara kokki ndax ku ne xam ne taxawaayam fii ci kokki ak lim fiy jëf si daara ji nga xam ne tey référence la fii ci kokki ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye di nuyu sunu xarit alhaji As Ndaw ndukumaan nga xam ne moom it ku jàmbaar la si daara ji di jëf-jëf joo xamante ni bii kenn mënu ko nattable di beral nuyoo sunu sëriñ alxaaji Maxtaar Naarloo nga xam ne tey moom mooy kilifa jataay bii di kilifa daara ji ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko jot nuyoo sëriñ kokki alxaaji Mouhamadou Xabaan ak nuyoo waa kokki yépp sëriñ bi ñun de mënuñoo wax ci yow madame la ministre dañ lay seedeel na la bu ngeen dee wut patriote ku baax ku liggéeyal sam réew koo xam ne tey mérito na lépp loo xam ne tey réew mi am na ko ci ay raaya war koo joxe jëmm ji moo ko mérito daara ji mu yor doon na ko ci waajuram ñu ngi ko fondé woon ci 1939 la ko sëriñ Ahmad Sakhir Lo sancoon ki ndigalu sëriñam maam Cheikh mbay ne ko demal kokki ku la fekk nga jàngal ko ngir yàlla ndax dëkk booba barke nga fa ndax dëgg la barke ngi fi ndax ku ne xam na sunu maam Maxtaan Ndumbe Jóob moo sancoon dëkk bii ci jamono yi 1752 ci dat yu wuute sancoon ko ci jàng ak jàngale sancoon ko ci alxuraan ba nga xam ne tey kokki ñépp ràññee nañ ko ci àdduna bi bu ñu nee kokki ne alxuraan ndax loolu mooy garaatu dëkk bi dëkk bi bu ñu nee ne alxuraan li gën a màgg ci kaw suuf muy alxuraan ne bu ñu nee kokki ne alxuraan kon kokki jàpp naa ne mooy dëkk yi gën a màgg loolu ñu ngi la koy seedeel ne sëriñ bii ñun waa kokki mënuñ koo fay waaye waa Sénégal yëpp mënuñ koo fay waaye jullit yëpp mënuñ koo fay ndax daara ji madame la ministre mi ngi ci cent 4650 étudiants yi fi nekk lépp di ay tuut tànk sëriñ bii toog sa kanam moo yor lépp daara ji moo yor seen dund yor seenu mbaj yor seenu nekkin madame la ministre xoolal lu toll noonu tey ku ko yor ci misaal nag tey ku yoroon sa kër fukki nit juróomi nit da am problème mu dépense wala sax noo ko gérer ndax ku ne xam ne kër yi tension yi ci nekk mais sëriñ bi moom yor 4750 ay tuut tànk nga xam ne li gën a yor jafe mooy ay tuut tànk mu yor leen di leen taxaw di leen defar te bu leen defaree ba noppi nag da leen di bàyyi ku nekk dellu fa nga jóge woon ay mbokkam jariñoo loolu la sëriñ bi def kon kii day defar nit fii kokki sëriñ bi amul ay taalibe ay donga yor yu muy defar bu leen jàngalee ba noppi defar leen defar seen jukkoo tarbiyee leen bàyyi leen ñu gën dem jariñ seen réew kon kii bu ñu wax dëgg dëgg dëgg dëgg Serigne Makhtar Naar Lo mooy patriote dafa mérito madame la ministre bépp raaya bu ñu war a joxe si réew mi ndax moom raaya moom suñu borom jox na ko raaya bi gën a màgg ndax raaya alxuraan dara gënu koo kawe dañuy wax ci waxu àdduna rek dañu bëgg sëriñ bii alxaaji Makhtar Naar Lo ñu gën koo jàpp bu baax a baax a baax ràññee xam ne fii Sénégal référence la référence la ndax lii muy formé ci daara ji bañ ko ubbee ba tey depuis mille neuf cent depuis mille neuf cent trente neuf buñ ko xayma woon ba tey jii di deux mille vingt trois mille vingt deux ñu xayma ñaata doomu aadama ñoo fi jaar ci daara jii loolu buñ ko doon xayma ay milliers de personnes mën nañ sox million jaar nañ fii sëriñ ba defar leen kon ku mel noonu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax. may sant bu baax waa kokki ndax liggéey bii tey bu tollee fii xam nañ ne waa kokki seen loxo ñu ngi si ndax ku ne xam ne sëriñ ba mu ñëwee waa kokki ñoo ko dalal jox ko suuf ànd ak moom liggéey bi waaye waa dëkk bi ñoo ànd ak sëriñ bi ki liggéey bi di ko ci jàppale guddi ak bëccëg ànd ak ñoom kon ñooñu kenn mu leen fay dañ leen sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na lool ñu ngi sant bu baax a baax alaaji Abdou Aziz Sylla ku ne na taxawaayam fii ci daara ji taxawaay bu rafet la liggéey la fi def liggéey boo xamante ni kenn mënu ko nattable kooku daara ji ñoo ako ameel cant sant nañ ko gërëm nañ ko ndax liggéeyam rafet na madame la ministre sunu kàddu ñun waa kokki sant nañ loo bu baax son excellence le président la république loolu turu waa kokki la ndax cër bi mu jox kokki ak considération bi mu jox kokki ñun waa kokki yëg nañ ko xam nañ ko sant nañ ko bu baax a baax tur ko kokki alhaaji Mouhamadou Xabaan Diop loolu cant googu ñu ko cantit moom la ko sëriñ bi sant sant nañ bu baax a baax ay kilifa yoo xamante ne ñuy jàpp si daara ji lañ ñoo xamante ni tey mënumaa wax te tudduma leen muy alaaji Abdoulaye Dia ak alaaji Moustapha Ndiaye ndax seen jëf si daara ji sama loxo lay jaar moo tax mënuma ko ñàkk a wax ndax ñooñu ñu taxaw ñu ràññee lañ ci daara ji kon madame la ministre kàddu gi bëgguñu ko téye ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyuwaat di la dalal jàmm baax a baax di ñaan suñu borom fay la bu tànk yi nga fi ñëwee suñu borom sàmm la delloowaat la si jàmm ndax ku ne xam ne yaa ngi ci xat-xat war a dem ci fekk son excellence le président de la république mais nga ne damay dem kokki door a dem kon ñun waa kokki amal nañ la sant gërëm nañ la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production bokk ci programme bi national international